lii mooy liggéey. la culture les communicateurs traditionnels mooy ñan kan la tuddee communicateur traditionnel kan la parce que bu fekkee président dafay recevoir communicateurs yi gisoo ci El Hadj Papa Dieng gisuloo ci El Hadj Bekay Mbaye qu'est-ce que cela veut dire lan la loolu mooy lan et puis ñu leen ñuy favoriser lan lan fi communiquer c'est c'est di n'importe quoi président de la république war na xool nomination gars yi nekk ci ministre yi fii xamuñu seen liggéey xamuñu avec qui parler xamuñu ku ñuy waxal ana seen i conseil nga dem recevoir président recevoir communicateur traditionnel yi gisoo ci Haj Bekaay Mbaye gisoo ci élage Hadj Papa Dieng ba pare léegi ñu yëkkati je sa pas man lijjantiwuma affaire moonin xaalis lijjantiwuma ko ñu jël leen il paraît dañ leen jox cent millions des trucs comme sa kan mooy communicateur traditionnel c'est di n'importe quoi te président aussi na xoolaat li def bu baax ñii buy nominé na seet ñi muy nominé c'est très important man nag Sofia man artiste la fii la déparé